pour gouvernement bi ah daf ñuy permettre moom moo ko moo ubbi benn brèche mais damay ñëwaat ci moom de parce que on va parler de monnaie dette yi modèle économique mm-hmm. s'il vous plaît su fekkante ne Cheikh Ousmane ci contrôle Cheikh Ousmane finance éco ah, emploi des jeunes yëpp ah tey thème yi ñu bëgg a développer dafa xaw a moo tax dinañ ci jéem daal li ñu mën rek euh, suñu ko waxtu bi may alors euh, kilifa mm-hmm. euh, ci ni muy waxee transition bi est bien faite alors nouveau gouvernement ñu am ko tombeek ñu proposé ñu benn projet plus benn programme bu ambitieux alors ndax gouvernement bi selon yow sa analyse en tant que chroniqueur tout comme Diori Ndiaye Cheikh Ousmane ak Serigne Mansour Sy Cissé répondre na ci attente sénégalais yi ak suñ ko méngaleeg projet bi ñu bi ñu tegal ci table bi. waaw euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure euh, waaw euh, parce que occasion la pour ñu commenter bu bees mhm. en tout cas man. Euh, régie régie euh, y a les internautes qui demandent bu ngeen mënee bind heure bi di ko afficher daf leen yitteel lool quoi. ci jox nañ la ko de daa mel ni. ci ñoom dañoo ah, xarañ laaj ñu jox la ko. ah super waay. voilà ñoom loo jox la ko. donc c'était une réclamation. mais bu laaj bu laaj nag ay xéwal. non non non xéwal yi graawul. <laughs> xéwal yi graawul rek non non non xéwal yi graawul parce que fii dama toog ak ñoo xamante ni dinañ reg dinañ ma reggal ci xam-xam. waaw ji de moom xam man moom xam-xam laay dundee. donc boo toogee ñoo xamante ni dinañ sëq sa biir ba mu fees ak xam-xam. doo doo laaj ci xew. c'est important en tout cas si vous venez de nous rejoindre ne ñu ngi ci 23h44 fii ci Sénégal. <laughs> Aziz a ngi indi Aziz man xéewal rek gis nga ñoom loolu laaj ñu indi ko ma wax xéewal rek. Aziz indi ak ay ay xéewal ak Seygo. Aziz ak Seygo. <laughs> alors. ni dina ma rey kilifa. par rapport ak gouvernement bu bees bi yaa ngi ko doon wax. waaw c'est c'est c'est un gouvernement c'est un gouvernement de de de de xaw ma rupture laa ko mën a tuddee parce que rupture c'est un mot très utilisé quoi voilà. mais je vais emprunter plutôt souveraineté ouais. parce que on nous a vendu euh, avec Abdoulaye Wade qu'est-ce qu'il nous avait vendu Sénégal lan am na lu mu ñu jaayoon de. kooku la. ah soppi bi ngay wax Abdoulaye Wade. soppi. waaw soppi de la fi indiwoon. soppi la ñu jaayoon. mais il avait un programme de politique générale pour euh, voilà quoi bon. peut-être jàpp ko ça va venir Macky Sall nous avait vendu tout au début yoonu yokkute. après mu jaay ñu. PSE e. e. voilà. yoonu yokkute boobu nag moo nekkoon affaire bi. en fait affaire bi. avant il était dans le document la pauvreté. fekk na ñu politique d'assainissement sociale xaw ñu rey temps jiw. waaw ndax jabaram mu ngi ñëw ak <laughs> solidarité partage. donc ci ci ONGM. Mm-hmm. donc affaire bi wax ji wax ji c'est la souveraineté. Mm-hmm. te il l'a dit. et souveraineté mën nañ ko méngale ak une révolution li li li war a xew. mooy dafa war a nekk une mais une révolution ci domaine yëpp ci secteur yëpp parce que mën nga am une sécurité alimentaire comme ni mu ko waxee et tu n'es pas souverain mais pour nga am une souveraineté alimentaire mooy dëkk li muy dundee bu fekkente ni bayalu ko boppam il n'est pas souverain on peut pas dire que nous avons une souveraineté alimentaire dëkk bu fekkente ni culturellement culturellement je dis et quand je dis culturellement la culture elle est large culturellement dafay jël culture u jàmbur adapté wu ci di ko dundee amuñu souveraineté culturelle parce que booy xool soo bëggee noot beneen dëkk comme yow da ngay jaar tu passes par la culture mm -hmm. tu passes par la culture su fekkente ni dëkk maanaam lépp li nga xamante ni mu ngi koy sol donte am na les coutrier les plus performants et les les les les les les meilleurs au monde mais bu fekkente ni matière première bi daf koy daf koy am fii génne ko pour ñu defaral ko ko jaayaat ko ko plus cher dëkk boobu amul souveraineté donc ni mu expliquer projet bi le premier ministre ñëw tegal ñu un gouvernement. oui gouvernement surtout rationalisé. Mm-hmm. avec un gouvernement de vingt cinq ministres. Mm-hmm. on m'a dit que ni oui Ablaye Wade la fait ci premier gouvernement Macky Sall l'avait fait. ci premier gouvernement non man no du benn plus 5 yi plus 3. et non c'est-à-dire c'est-à-dire du sax benn. lan mooy def différence du sax benn. jëlal par exemple ministère par ministère. Mhm. ministère par ministère nga jël nga xool yi ñu boole yépp nga jël. Mhm. peut-être quelqu'un ku mel ni man am na foo xamante ni peut-être. Euh, mën waaw. dégg naa la sànq bi nga mooy culture. culture tout à fait waaw mais je pense que ni culture bu ñu demee tamit ba teg secrétaire d'État secrétaire d'État c'est comme ça. Euh, pour la culture. Mhm. fi ñu ko rattaché ah, fi ñu ko rattaché ok. parce que xam nga li ma fa expliqué mooy j'ai expliqué par rapport à la culture. waaw loo fa wax. Euh, la culture dafa nekk loo xamante ni mooy dëkk. Mhm. Euh, est-ce que xam nga làmb ji ñuy jël di ko dugal ci sport sax ci culture la bokk. enracinement bi nga wax très bien mooy enracinement bi euh, bi bi docteur doon expliquer léegi. làmb biñ dugal ci sport ci culture la bokk. parce que dañ la naan bëre aada la bëre cosaan la. lan mooy caada ak cosaan. culture mooy culture. Mhm. est-ce que xam nga ni ba ci religion dañ koy boole ci culture. donc la culture dafa nekk loo xamante ni dafa complexe dafa complexe mhm. ba dafa bari dafa énorme mhm. mais je pense que nii ak euh, on a créé un secrétaire d'État secrétaire d'État à la culture à la culture aux industries créatives et au patrimoine ba pare ce secrétaire d'État d'État à la culture de le PM daf ko rattaché directement ci ci ci boppam donc xel mun na ci daal Bakary Sarr lañ ko ça m'a mais après Sénégal la rek quoi nous allons tous accompagner le projet di ko gën a ñoŋal di ko gën a sécuriser mhm. di gën a ànd ak le projet mhm. mais bu weesoo loolu c'est un gouvernement mais excellent man ci man li ma gëm ak li ma xam ba pare ki nga xamante ni moo teg bi dañ cee cabaxal tamit culture mais dégguloo dama ne la sport euh, euh, sport la jeunesse culture culture sport dafa nekk loo xamante ni jàmbaar dafa yaatu. te sport tey jii dafa nekk loo xamante ni dafa bokk ci les leviers de développement. mais daf ñu rejoindre keroog bi ñuy waxtaan fii naan ASC yi association sportive et culturelle lañ daan wax. Mm-hmm. waaw waaw euh, loolu loolu xam nga euh, buñ euh, parce que. waaw loolu ASC mooy association sportive culturelle. Mm-hmm. nawetaan yi parce que da daan am da ngay gis branche culturelle branche xam nga loolu ci la la yemoon. ci lan xam nga lu tax ñu créé woon tur boobu. parce que da ngay gis ñuy football ñooy football euh, association euh, euh, ASC sportive culturelle mu am ñoo xamante ni. ñoom ñooy def les organisations supporters yeeg asiko yeeg ñooñu looloo tax ñu peut-être ñu kii yoon ko ci loolu. Mhm. mais waxul woon la culture bi may wax nii. bokkul wax nii bu gën a yaatu. bu gën a yaatu la bokkul quoi mais mën nañu ànd si fekkente ni vraiment euh, kii nañu ko le secrétaire d'État de culture euh, dafa mel dafa mel ni benn ministère la bu nekk ci biir ministère bi donc je fais confiance à la personne au PM. c'est quelqu'un boo xamante ni euh, vraiment buggut lu dul la réussite de ce projet mhm. parce que si on arrive à réussir par exemple si le projet euh, la réussite de ce projet mooy li nga xamante ni moo ñuy génne ci li nga xamante ni yëpp moom la ñu nekkoon ba pare moo ñuy dugal ci une sécurité pour nos enfants mhm. parce que man suma ma lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp nekkatul man mhm. nekkatul man sérieusement quoi nekkatul man euh, comme ni ma ko waxee mais c'est nos enfants te bu ñu amee loo xamante ni dalal na suñ xel dañuy dañ koy accompagner dañ koy gunge parce que affaire yi bari na maa ngi koy wax à chaque fois les Sénégalais ci ku ci nekk ci domaine bu ne tu es compétent mhm. donc on a besoin de tout le monde pour pour pour accompagner le projet on a besoin de tout le monde pour sécuriser le projet. Mmh. tu donc chaque sénégalais da gis ci internet yi par exemple des propositions ñu ne dañuy organiser pourquoi pas les jeunes s'organisent pour chaque mois spontanément pour chaque mois loo xamante ni day dugg ci progr day dolliku ci projet bi donte mu ngi ci mais da ciy dolli. loo xamante ni chaque mois jeunes yi dañuy génn dans tous les quartiers ku ci nekk nga setal sa quartier. am na solo déjà assainissement bu ku nekk jëlee en charge sa biir kër waa quartier bi sa buntu kër waa quartier bi jël seen quartier mais ça on va plus parler de Sén euh, on de Sénégal propre te je pense que ni loolu don de soi bokk na ci lu ñuy wooyee le don de soi parce que réew bul mës réew mi lan la may defal mais tu dois toujours te dire qu'est-ce que je dois faire pour ma patrie man lan laa war a defal suma réew donc man ci loolu laay invité sénégalais yi faisons confiance à son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye qui a un amour pour la patrie mais faisons confiance pour le PM Ousmane Sonko bi nga xamante ni xam naa ni gëj na lekk gëj na nelaw lu doy gëj na naan